nisru mooy loo xam ne lu ñu sopp la ci lislaam nga warlu ko te fekk waru la kon nag waru laa nisër lu yàlla araamal mbaa lu yàlla sib loolu soo ko defee dangaa war a jéggalu nisër ga nga ko nisër rekk waaye bul ko xalaat def wa man nadara ku nisër salaatan julli aw xukoofan wala lixtikaaf bi masjidin ci jàkka mina salaasi ci yetti jàkka ya xadara mu war a dem teew fa li fi'lihi ngir ak defam walaw na waa ak doonte yéene woon na bil afdali te fekk mu nekk ci jàkka jëgën mu ne yetti jàkka yi moom muy jàkka ji ci kaaba ga ak jàkka yonent bi ci madina ak al masjid al aqsa yetti jàkka yi moom foofu ni sore dem julli fa nangami ràkka baalix ci kaaf fa day war nga àggale ni sore jooju doonte sax danga nekk ci jëggan ca ñoom ni sore dem ci ceneen joo xam ne mooy jëñu gën julli fa baalix ci kaaf fa it du tee moom mu war la mel ne nga nekk ci jàkkay kaaba gi nga xam ne wóor nañ ne moom moo gën jàkkay al aqsa kon itam ñoom nee nañu boo nekkoon jàkkay kaaba ga nisru dem ca al masjid al aqsa julli fa mbaal yi ci kaafa it faaw nga war koo àggale ka xayrihi niki judul moom dafa dellu ci bil afdal nga nekk ci jàkk jëggën ni sore dem ci jeneen di bokkut ak moom ci yetti jàkk yi julli fa mbaal itikaaf fa moom nga nekk ci jëñu gën ñoo yemoo nga xëyri yi mi ngi mel ni nga ne boo nekkoon ca al masjid al aqsa ni sore dem ba ca jàkkay kaaba ga mbaa ja ca madina nga julli fa mbaa nga lil ci kaafa ku ne xam na ne moom dana la war ndax dangaa nekk ca jëñu gën ni sara dem ci jëggën julli fa mbaa lil ci kaafa mu ne la ñoo yemoo képp nag boo nekkoon ca ci gën mel ne ja ca kaaba ga nisar fa bàyyi koo dem ba ca al masjid al aqsa nga julli fa mbaa nga lil ci kaafa it benn rek du tee faaw nga war a bàyyikoo ci jàkkay kaaba gi dem ba ca al masjid al aqsa nga def fa loolee nga nisar waxayru saa lu dul lii nag moom laa tarxal bu mu la taxa laxas maanaam bu mu la taxa dem addis ba dane woon laa tushaddu arrixaalu illa ila talaasati masaajida masjidi hada wal masjidi al xaraam wal masjidi al aqsa kenn du jóg di dem ci yenn jàkk ndax yéene faa def ak jaamu yàlla lu may yetti jàkk yi moom joo ci yéenee dem julli fa mbaal ci kaafa rek daldi fay war a dem kon ci ni addis bi waxee ràññali wut nga nekk ci jëggën ni sore dem ci jëñu gën ak safaan ba amu cëg teqale ba tey noonu la taalifkat bi waxe woon dane woon jàkka jooju mën di nekk ci yett yi ni sore dem ca jeneen moo xam juñu gën la moo xam jëggën la faaw rek nga war a dem ca jooje nga ni sore def falang po nisër muy julli mbaali tikaaf waaye nag sëriñ boobu taalif aqrabul masalik day wax ne boo nekkee ci jàkka ja nga xam ne mooy jëggën mel na nga nekk ci jàkkay kaaba ga nisër dem ca al masjid al aqsa julli fa mbaali tikaaf it du jar ngay bàyyi ko fii ci jàkkay kaaba gi di dem ca joojee ndax ñëpp maase nañ ci ne jàkka yi kaaba gi moo gën a màgg la nga nisara defi foofee ca al masjid al aqsa def ko fii rek ci jàkkay kaaba gi da cay teg sax ne borom xam-xam yi maase nañ ci waaye nag dégg nga ni taalifkat bi mu waxee day mel ne kon ñëpp dëppoo wuñ ci wax jooju mel na ni sax bu dee ci ñi toppatoo wàllu loxo bi laa taraxal mëntu nasab xaw da za xëy na kon li xëw di za moo ko tax di wax boo xasee génn yetti jàkk yi moom muy jàkk yi kaaba ga ak jàkk yi madina ak jàkk yi al aqsa geneen jàkk jooni sara dem julli ca mbaa li tikaaf fa itam du aajowoo nga di ca dem say boo rek fa nga nekk nga toog fa te lim ba nga xam ne boo demoon foofee moom nga fay liitikaaf mbaa moom nga fay julli nga defe ko fii nga nekk rek mel ne bu amoon jàkk ju nekk ca ndar mbaa ca ndakaaru mbaa ca ngaay mexe nga nekk fii li sër nag dem ba foofu nga julli fa nangami ràkka mbaa nga liitikaaf fa nangami fan du aajoo ngay dem fenn ci ndakaaru mbaa ndar mbaa fenn da ngay toog fii nga nekk rek lim ba nga naroon a julli foofu boo fa demee mbaa lim ba nga naroon lixtikaaf boo fa demee nga defee ko fii nga nekk baabu li ab bunt la fil jihaad ci jihaad wala jisyati ak galak wala musaabaqati ak rawante mu jongante ci course wala jongante ci sànni bëgg a jam dara fardul jihaadi faratay jihaad fi ahamil amkinati nekk na ci gën jaa yitteeli barab ya kifaayatan mbir mu muy fardu kifaaya ma ay yiwaalin ànd ak jumu ci jaraaf maanaam ànd ak kumu ci àttikatu julit fi sanati ci at ma jihaad ci yoon yàlla mooy xeex ak ña nga xam ne bu ñu ay julit ndax aar lislaam ak yaatal ko moom nag bu fekkee ne yéefar yi somb ñu jullit ñi nga xam jullit ñi ñoo bëgg a yaatal rek lislaam ak aar ko moom jihaad ji far bu kifaaye lay doon at mu ne ñu seet béréb ba nga xam ne fa lañ gën a ragale noonu yàlla yi bàyyi ko fa dinga mënuñoo matale béréb yëpp yëpp ndax mbooloom jullit ñi ak seeni ngànnaay matalewu ko at mu nekkoon fardu kifaaya la ñu seet béréb ba yéefar yi gën a dëllee ñu gën leen faaragale ñu song leen foofu jihaat ak ñoom ndax aar lislaam ak yàqli ko su boobaa dem ca jihaat ja fardu kifaaya la ci ñoo ñuy bëgg a wax fardu kifaaya mooy bu ñenn ña demee ñenn ña mën nañoo bañ a dem te jiitu jullit ñi nag moom ku mën doon rek bu wootee jihaad ji jullit ñi war koo nangul wuy ji ko mu nekk ku maandu ak mu ñàkk maandu ñoo ci yemoo ndax yàlla moom su bëggee dëgëral lislaam du ca seet te jiite jullit ñi ak ñàkk maandoom mën naa am sax kooku maanduwul waaye yàlla ci mbaaxam mu daal leen di defal ngañaay loo xam ne lu rëy lay doon jaarale ko ci loxoy kooke nga xam ne mooy seen jiit te taxu koo maandoo noona rawante na nag kon kay woote jihaad ja di njiitu jullit loo xam ne ku ne xam na ak maandoom ak uk dëggoom ci lislaam xalaa saxiixin war aji wér maanaam ko wér yaram xaaqilin ku di aji xellu xurin kuy gor zakarin kuy góor wa muslimin akub julit te di ab julit daal wa baalixin tey aji kàllafe xad iqtadara kook mën na buñ ne jihaad fardu kifaaya la ci yooyu jamono du nekk fardu kifaaya ci ñëpp ñëpp dañuy digal jihaad mooy koo xam ne am na wéru yaram ku wéradi génn na te it ànd ak sagoom ab dof mbaa ko xelam manqué loolu bu xaw a jege ab dof génn na ba mu amee itam teqale gor ak jaam it gor rek lañu wax jaam génn na booba it góor rek lañu wax jigéen génn na julit lañu wax waaye yéefar génn na mukallaf lañu wax ci yooyu jamono waaye gone génn na ba noppi nag mu amuk man boole ca koo xam ne dafa màggee màggee ba mënta jihaat wala daa amee am gumba wala daa amee ak laag gi fa amee xeetu laago ñàkk gaaman mooy tax wàcc na leen min xëyri day liñ ci lu dor xal la bopp ay na maanaam bopp waxtu fayam jot na aw ab way ni wala ñaari waajur su fekkee ne jihaad ji faratay kifaay rek la nga xam ne kon ku am ay bor yu mu war a fay te waxtu fay wa jot na te bu toogee mën a lijjanti fay ko du sañ a dem te toogul ba lijjanti fay bor yooyee bu dee nag da caa tële moom bu toogee it du tax mën a fay bor ya mbaa nga xam ne waxtu fay ga dafa jotagut mbaa nga xam ne kam ku siqal moo ko wax ne ko jéggal naa la mën ngaa dem ba ñëw waaw kon nag kon mën naa dem ndagamit jihaad ji faratay kifaay rekk la bu ñenn ña demee ñenn ña mën nañoo bañ a dem ku am yaari waajur day xaar bañ may ko ndigal ci dem waaye du jekki-jekki rek dem bu kenn ka génne àdduna kenn ka des fa it na laaj ndigal ci ka fa des ba may ko ndigal mu door a dem bu ko kenn ka mayoon ndigal kenn ka ne pat waxul dara itam du tax mu sañ a dem faaw rek ñaar ñëpp da koy may ndigal mbaa kenn ka fa des di dund may ko ndigal mu door a sañ a dem aay nan mbir mu muy faratay jëmm nag isa fuuju dem betteef na leen wadu temps yéene ak ci ak ràññeele jihaad ja day sottiku faratay jenn jëmm ju ne bu fekkee ne yéefa dañoo songu dëkkub julit ñooña jëmm ju ne farata la ci yow nga jóg taxaw temm ci ñu delloo yéefar ya gannaaw bi ci ñooñu tëlee ñu sus ci ñoom di ay julit war leen caa dimbale ñu toppe ko noonu rek bu fekkee ne it ilimaani julit ñi moo seet jenn jëmm ne ko yow mii digal naa la nga dem ci jihaad ja kookee topp ndigal la dem ci jihaad ja dal nay soppiku faratay jëmm ci moom moo xam doonte gone la mbaa jigéen sax waaye muy gone muy jigéen ndegam mën naa xeex rek te ilimaan bi ràññal na ko ne ko demal ci xeex ba kon war naa dem bu doon mbooloo la ràññal tam ne mbooloo sàngam nañ dem ci jihaad ja it faaw ñu war a dem saa yu jihaad ji soppi ko faratay jëmm nag moom dem rek mooy daal di war ku amee woon bor boo xam ne boo toogoon mën koo fayit dalal dem rek ku amoon ñaari waajur bul déglu seen ndigal yooyu jamono seen ndigal kenn du ko déglooti dem rek yu aradu def na gaaral al islaamul islaam xatman ci lu war alayhim ci ñoom aw gis yëtun wala galak inna lahum dem jot na leen ahkaamun attey lislaam mu ne buñ àggee ci ay yéefar duñ jekki-jekki song leen dañ leen njëkk woo ci lislaam maanaam gaaral leen seere baati seere yi xamal leen ponk lislaam ba xam daañu ko nangoom déet nee nañu dañ koy def ñetti fan bis bu ne ñu dem woo leen ci lislaam gaaral leen ko ba xam bu ñetti fan ñi matee te nanguwuñu ñu gaaral leen ñuy joxe galak galak daa xaw a nuru lempo mooy am li war a joxe ci alal at mu ne bàyyi itam lislaam mu tasaaroo duñ ko xeex fi am ak jullit ñi lu may jàmm rek tey joxe suñ ca boolee fa ñu nekk fu toll xam lañ nekkee duñ nu mën a bett duñ mën a jékki-jékki fippu kon nu mën leen a bàyyi ca seen kéefar gañ nekkoon dañuy joxe galak googu nañ ko war a joxe dañ bàyyi leen rek ca seenu kéefar ñoom itam ñu bàyyi lislaam mu tasaaroo suñu nekkee nag foo xam ne duñ mën a xam ci seen mbir dara mën nañoo jékki-jékki fippu mbaa ñu boole gàntu yaar yépp nangu ñoo tuub nangu ñoo joxe galak kon jihaar rek xeex ak ñoom rek kon nag moo fa sës moom lay wax naa wa xóotiloo kon xeexeef naa ak ñoom illa nisaa andara jigéen ña wa zamnaa ak way lompañ ña wa tifla ak ndare gone wal majnuuna ak ndare ab dof wa cheikha ak ndare góor ga alfanaa ga jeex tàkk lislaam moom bu dee jihaad day sàmmoonteeg teggiin ak ormay àqi doomi aadama day am ñoo xam ne kenn suñ leen rey te di ko tey jigéen muy mag muy gone ci yam jigéen kenn du ko rey ci tey lu may nag daa mën a xeex ba noppi di xeex ku lompañ maanaam ko amee benn xeetu laago kenn du ko rey te di ko tey gone kenn du ko rey te di ko tey ab dof noonu kenn du ko rey te di ko tey mag mu dem ba jeex kenn du ko rey ak lim ci teg wa mislul ama kem aji gumba la raahibun ab labbe mun hasilun bi aji baru in lam yekkun dem nekkut ra'lun xalaat mustaamalun buri buñ jëfandikoo lëxoo di ko ñeel gumba kenn du ko laal lu may nag moom gumba la waaye dafa amee xalaat te di ko joxe ca xeex ba kooku moom ku yabu rey ko ndax xalaat ya muy joxe léeg-léeg sax mooy raw taxawoon di xeex ab làbbe boo xam ne daa beru ca àll ba di jaamu yàlla jaxasoo wut ak ñam bokkul diine te it nekkul di joxe jenn xalaat ca xare ba dañ ko fi romb rek jàll kenn du ko laal waaye nag bu fekkee ne ma ngay jaxasoog waa diineem di joxe xalaat ci mbirum xare ba nag dañ ko yemale ñëpp daal di koy rey ñi ñu wax ne nag kenn sañ leen rey nag ku ci reyoon kenn itam da ngay tuub rek jéglu sa boroom def nga loo warta def du tax nag ñu fayu ci yow baa ñu lay fayloo diye baa ñu lay fayloo kafaara benn alamaan déedéet wal xatlu rey ga binnaaru ci sawara wa summin ak tooke yaxrumu dana araam in am kana ndeem jàpp ni na alxawru leneen lu bokkut ak sawaraak tooke wa fiihim tam nekk ci seen biir muslimun ab julit buñ dee xeex ak yéefar yi nag te fekk na ay julit nekk ci seen biir wala ay jigéen ak i gone nekk ci seen biir nga xam ne du rekk xeexkat ya mu ne kon lañ leen moytoo sànni sawara wala dara lu am tooke day ci yooyu jamono jeesu ju am tooke mbaa fett gu am tooke kenn du leen ko sànni bu dee suñu jamono ji ñu toll ngànnaay bon yi nga xam ne wari su ko jëfandikoo kenn du ko jëfandikoo ci ñoom dagam rek ay julit dafa rax ci seen biir wala ay jigéen ak gone nekk ca ba tey it kenn du mën a jekki-jekki rek walal am ndox maanaam dagg téewub ndox bu réy réy mu sotti ci seen kaw labal leen ci am ndox daal ci misaal wala téew ndox ba du àgg ci ñoom ñu dee ci aw mar loolu lépp ndegam ay jullit ma nga ci seen biir mbaa ay jigéen mbaa ay gone kenn du leen def loolu su fekkoon ne nag moom xeexkat ya dong nga jigéen amu ca gone amu ca ab jullit nekku ca kon mënees na leen a sànni sawara mënees na leen a sànni lu am tooke mënees naa jekki-jekki bàyyi am ndox mu bare bare mu wal ci seen kaw mbaa mbaa ñu dagg coow wa jëm ci ñoom ñi dee ci aw mar waaye itam nag bu fekkee dañu di ñu doy waar ñoo xam ne kuy jéem a sàmm àqi gone yaag jigéen ñaag julli ja ci jaxasoo kuy jéem a sàmm lool rek ñu daldi gaañ jullit ñi ngaañ lu rëy rëy kon kat ku yebu rek dal ci seen kaw canam jàppandee rek te jéem a moytu ku di jullit ak ku di gone ak kuy jigéen te nag rek jëflanteeg ñoom canam jàppandee ndax ndegam ku defut noonu daañu def jullit ñi loo xam ne dina àgg foo xam day jéggi dayoo kon nañ jëflanteeg ñoom canam jàppandee rek tey moytu nag jigéen ak gone ak ab jullit bu nekk ci seen biir moom di koy jéem a moytu bañ koo laal bu dogal ba ñëwee ñu xam ne dogal baa ñëw wam na na nga tere li man ñeel ko nga xam ne farra daw na mislayhi ñaari kemam min hum ca ñoom aw balaxat wala jot umoo fu naa sunuy junni is nay xasara fukk ak ñaar kuy jàng mu seetlu loxo bi farra mislayhi farra daa ànd ak min niki farra min mislayhi waaye lu mel noonu moom daa bari ci téere bi lool lool bokk ci jullit ñi ba noppi nag ñuy xeex ak yéefar ngay daw dafa bokk ci bakkaar yi gën a mag ba suñ boroom ne ku ko def yàlla mere na la te sawara nga jëm alquran da ko diise loolu wax ne wa man yuwallihim yawma isin duburahu illa mutaharrifan liqitaalin aw mutahayisan ila fi'atin faqad baa bi ghadabin min allahi wa ma'waahu jahannam wa bi'sa almasir lu may nag wan leen ne leen jekku ngeen ma maa ngi daw bañ topp la nga wëlbatiku songaat leen kooku mooy mutaharrifan liqitaalin mbaa bokk nga xam ne meenam yow dong wéet nga foofa boo jàmmaarloog ñoom dañ lay jekk lu fi saasa nga daw nag tafu ci meneen mbooloom jullit ngeen bokk songandoo loolu mooy aw mutahayisan ila fi'atin loolu moom dug daw awit dara nekku ca waaye nag ku dawee nu bokkut ak noonu rek def na bàkkaar bu rëy rëy waaye nag ba daw gay araam kat mooy bu fekkee ne jullit ñi ak yéefar yi dañoo tolloo rek ab lim wala boog yéefar yaa ëpp waaye lañ leen ëppee mutul ñaar ca de bu fekkoon ne yéefar yaa ëpp te lañ ëppee ëpp na ñaar ci jullit ña kon ku daw itam doo am bakkaar lu may nag jullit ñi mat fukki junne ak ñaar te déggoo ci kàddu amuñu genn juyoo kooku moom nee nañu lu yéefar ya bari bari bu jullit ñi xasee mat fukki junne ak ñaar yoo xam ne am nañu déggoo ci seeni kàddu rek kenn du ca sañ a daw ci ñoom jullit ñi jullit ñi bu ñu xasee ñàkk déggoo ci kàddu bu yéefaree bare rek daanaka jullit ña dañu daldi nasax loolu moo tax yooyu jamono ku daw itam doo ca gàddu bàkkaar wal xumsu xumus ba fil xun mi ca màng ga li baytil maali ñeel na baytu maal wal arbaxu yent ya al axmaasu te ay xumus laa ci jublu li rijaali ñeel na góor ña maanaam jullit ñi buñ xeexee yéefar yi ba amee ci ñoom alal alal ji dañ koy def juróomi xaaj benn xaaj bi ilimaan da ko yóbbu ca baytimaal muy kees ga jullit ñëpp bokk di ca def li nga xamee ne mooy maslaay jullit ñi ñeenti xaaj ñoo des nag moom la ñuy séddale ñi nga xam ne ñoo demoon ca xare ba sahmun ab cër li xaasina ñeel na sunu aji xare wa diafaahu ñaari kemam alfaras ñeel na fas yooyu jamono fas dafa amoon solo lool ci xare dañ daan wàññi fas yi nuñ toll fas wu ne ñu sedd ko ñaari cër jenn jëmm ju ne ñu sedd ko benn cër nga xam ne ku waru fas ñetti cër ngay am da nga am sa cëru bopp ak ñaari cër yi nga xam ne fas waa koy moom wala xadaa ak doonte xëyoon na fii xaajatin ci soxlas xare bi mislil xarasi kem wattu mu ne nag koo xam nekku woon di xeex sax waaye la nga nekkoon daa bokk ci xeex ba mel ne di wattu ba dara du bët jàll si jullit ñi wala di leen gëstul secret mbaa di leen andi li ngànnaay mbaa ñam wa ñuy jëfandikoo mbaa daal lépp lu bokk ci xare ba rek ku nekkutoon ca sàpp sa fa ñu xare waaye la nga nekkoon tam mëntoon a ñàkk ci mbirum xare bi dañ lay boole ci waa xare bi daal lay séddaale wa sittatum juróom benn lam yi axudoo duñ jàpp ab cër fil maxnami ca màng ga alxabdu moo di ab jaam wal unsa ak jigéen wa xayrul muslimi ak kudul julit wa tiflu ak gone wal majnoon akub dof aw man wala ka nga xam ne xaaba fàddu na maanaam teewul xare bi wala aaba te delluwut alal jooy si xare ba bi naf xin ci benn njëriñ juróom benn ñi moom bu ñuy séddalee alal ji jële ci yëfar yi duñ ci am ab cër ab jaam yooyu jamono dafa amoon teqale góor ak jaam jaam moom bu teewee xeex ba yàllaa koy fay tuyaab waaye buñ dee séddale alal ja du ci am wàll jigéen ba tey noonu kenn du ko sédd ab cër doonte teewoon na tey xeex boole ja koo xam ne itam du ab jullit doonte sax dafa bëgg jullit ñi ànd ak ñoom di leen xeex la itam du tax ñu sédd ko gone it noonu kenn du ko sédd gone da ci jublu koo xam ne agul ci ati kàllafe kooku nag nee nañu su fekkee ne mën naa xeex ndax dooleem àgg na ca ilimaan ji jox ko ndigalul xeexal kon des na ko sédd waaye bu dul loolu gone kenn du ko sédd ab dof moom kenn du ko sédd mukk doonte sax teewoon na ci xeex ba te jàmbaar la ji du tax ñu sédd ko boo xam ne nekkutoon ci xare ba te nekkutoon ci leneen loo xam ne day amal njëriñ waa xare bi ci soxla boppam rek la nekkoon kooku moom jutiwut ak waa xare bi dara kenn du ko sédd charaitul jisyati sarti galak xam suñ juróom la qudratun ak man xaqlun ak xel bulooxun aku kàllafe xultatun ak jaxasoog waa diineem dukooratun akuk ngóor ngi wax galak waaye daa xaw a nuru lempo yéefar ya nga xam ne benn dañ leen a ëpp doole jubóog ñoom ci bàyyi leen ci seen diine ñuy joxe galak mbaa boog jot noo xeex ak ñoom sax ba leen gañe waaye dañoo waxtaanu nun ñu déggoo ci di joxe nàngam loolu moo tudd galak bu dee nag ñoo xam ne danoo xeex ak ñoom ba gañe leen not leen moom dañuy seet ñan ñoo ci war a joxe galak gi kañ koy teg nag faaw day nekk góor kenn du ko teg jigéen ci yooyu jamono day nekk itam mag kenn du ko teg gone day ànd ak sagoo nit du nekk dof dof kenn du ko teg galak te it mu doon kuy jaxasoog waa diineem bu dee ko doru ca àll bay àll ba di jaamu yàlla ci diini jëm gëm rek noona kenn du ko teg kala googu loolu ñeen sart la bi ko juróomeel nag mooy mu mën ko boole ci su fekkee mënul lim ba ñuy wax la man rek lañ koy teg moo tax xudratun jee kàttan loolu la ci jublu wa qadruha kemut galag ga fii kulli xaamin ci mépp at xulli xamum ajeef na ko maa mooy la nga xam ne saalaxa yëwénante na ak sulx yi ko jug yëwénante ga àll yi ci moom mutlaqan ak lu man di doon su fekkee ne ñooña